jàmm du am fu dëgg amul jàmm du am fu dëgg amul salaamaaleykum mbokki auditeur et auditrice du Banlieue FM la première radio digitale à Saint-Louis capitale du bàyyi ko fii ci Pikine ñoo ngi nuyu également beaucoup mbokku téléspectateurs et ak internautes qui ñuy suivre sur Colbert Media, ci Facebook et YouTube di avons aussi di aussi gërëm di euh, aussi sama débatteur nous, Oui, je nuyu waaw la xanaa di la fay di Ah, dellu si bi fii si suñu mbokk auditeurs yi suñu mbokk internautes ak suñu mbokk téléspectateurs yi di leen wax ni vraiment beneen bisu bees encore vraiment ak beneen waxtaanu keppaar <laughs> waa tey moom dañu dañu indi beneen thème bu bees parce que réeréwu leen mbir ni ñu ngi dëgmal weeru koor incha allah tey mooy sunu séntu bu njëkk tey dañuy waxtaanee si jigen ak jamono ñu waxtaanee taxawaayu jigéen ci weeru koor Euh, ci pour suñu auditeurs aussi ku bëgg participer nga 33 961 61 02. voilà tout à fait Marème vraiment il faut que comme nous, l'avons koy des fois alors euh, nous euh, dañuy junj rek waaye daanaka xel mi xalaat bi yëpp mi auditeurs yi mbokku internet yi ak téléspectateurs alors ñom ñoo yore xel mi ñun xëy dañu junj rek waaye ñom seen participation day day jekk lool ndax lépp lu ñu wax ñoo ko ñoo si gën a xam ñoo si gën a xarañ n'est-ce pas comme ni ñu wax naan ñi si ñi si naaj wi ñi si ker gi ñoo leen ñoo bàyyi ñoo ñoo ñun ñi si naaj ñi si ker gee leen bàyyi kon ñun aussi bu fi nekkee dox ñoom la ñoom rek la kon day des fois dina ni dinay rafet lool vraiment di neex loolu ñoom ñu dugg si vraiment apporter seen pierre à l'édifice ñoom maanaam jox waxtaan indi seen wàll si waxtaan bi ndaxte li ñuy wax lépp peut-être que mën am maîtrise wuñ ko trop ñoom gën a xam am na fi vraiment mag ñaa ngi fi xale yaa ngi ñëpp ngi si donc vraiment ñoom ñuy dugg ñuy ñuy ñuy échanger teg ñoom si vraiment def si baax daal daf si baax en même temps aussi Marème yaakaar naa ne suñu table yi wiir na trop vraiment daal da ñu su ay partenaires surtout n'est-ce pas bu ñu wax Pikine vraiment suñu taabu ji wéet na lool daanu toog daanu mar daanu bëgg naa ndox daanu bëgg naa lu saf suukar lu saful suukar vraiment les partenaires vraiment taabu ji wéet na lool kon ñëw leen vraiment parce que euh, alors rajo banlieue la ku ni Pikine li mooy Ndar donc vraiment c'est très écouté vraiment am nañu seen auditoriat boo xam ne vraiment macha allah. kon vraiment daal partenaires yi wax dëgg yàlla war ngeen commencé ñu buuxal dese nag ñëw vraiment au moins fësal seen bopp si mbir mi daal. <laughs> waaw te ñuy a ñaax rek euh, suñu mbokk yi ñuy gën a abonné wu ci site bi Golbert Media euh, dinañ ci trouver également Banlieue FM trouver ci aussi Banlieue TV tey nag moom euh, loolu damaa bëggoon ñu waxtaanee tuuti taxawaayu jigéen ci weeru koor jigéen nan lay taxawee ci weeru koor ndax bu ñu nee taxawaayu jigéen ci weeru koor wax. ci koomu jigéen wax ci yaxanal bi jigéen war a yaxanal absolument absolument tout à fait alors weeru weer la boo xam ni bon koor déjà buñ ko indi vraiment ni mu ko ni mu ko waxat ni mu dikk sa alxuraan n'est-ce pas mooy sang wér yëpp daal ndaxte mooy weer yi nga xam ne weeru ngëneel kese la kon bii ñëw daanaka euh, euh, alors euh, ñun dañuy aada woon doon ay doomu ndaan xam nga daanaka koor bu daan ñëw rek vraiment kii wéeru koor mbégte lay doon daal jamonoy daara bu koor gi daal ñëw vraiment daal am na ay taxaw yu bari xam daan kese daan def ba tax na jigéen aussi boo indee jigéen si wàllu woowu n'est-ce pas dañ naan xëy na jigéen alors euh, mooy kii nga xam ni nest pas jigéen bu ndaw n'est-ce pas mooy ki nga xam ne en général dina néew lool lool lool mu wóor fanweeri fan ñu mat sëkk ndaxte dina am lu ko def baax te bu ko def bu ko dikkalee yoon dootu ko moytu muy wóor. góor moo mun a màgg fu war fanweeri fan bu gungee wër ba def lu kat mais jigéen xëy na dina am jamono yoo xam day contraindre bàyyi koor gi kon kooku yenn weeru yëpp waaye buñ dee xool si wàllu xam tey jigéen a yenn koor gi moo yenn weer moo ko moo ko mu jeex tàkk si lépp nag à tout point de vue weeru ñëw na jéeg yëpp jéeg ji laa wax ñi xam ñi ngi jée seen ñëpp kenn seen xel dalatul am na suñoo xam ñi gën a ah yàkkam naa koo gi ñoon ma dem defante ji mais am na suñoo xam dañoo tiit li taxaw man vraiment am na yoo xam ni ah alors ay obligation yi nga xam ne kat social te amaan du du du je ne daal duggaat si biir waxtaan bi ah ñëw naan wàllu suukaru koor n'est-ce pas sàng njëkk yi sàng goro yi indi suukaru koor goro indi yoo xam ni vraiment euh, c'est extraordinaire te weeru yëxanal la daal kon vraiment daal dina rafet lool comme ni nga ko waxee ñu waxtaanee ko ndaxte weeru d'abord en même temps taxawaayu jigéen si weer wi daal. nest waaw actualité la war nañ ci mën a wax bu baax ndax euh, taxawaayu jigéen ci weer wi man gis naa ni presque depuis 15 jour mm-hmm. sama naataango jigéen yi ña ngay préparé di waajal weer wi ña nga ca porcelaine ya ña nga ca ustensile de cuisine yi bëgg rénover napp yi accessoire yëpp daal yoo xamante ni rek dinañ ko soxla sur la table mm-hmm. ñoo ngi ci ba pare nag commerçant yi nag xaw ko cheral loolu moom lañ ci wax lépp la ñu aj lépp la ñu aj na nu bàyyi bu programme amee rek bu ñu dëgmalee programme ñu aj yëf yi loolu moom te jamono bi dafa metti mais jeeg ji moom mhm. tubaar fa kàlla boo demee bitigu ndab yaa ngi leen fay fekk ña nga ca porcelaine yi ña nga ca ustensile de cuisine yi ña nga ca craft yi taas yu rafet yi lépp daal macha allah ngir rek waajal koor gi wallaay waajal koor gi nag ah yal noonu ci dugub bisimilah génn ci ak alhamdulilah waaye waaj gi te pourtant nag buñ ko seetloo tuuti. koor weer la goo xam ni alors euh, ni mu nekk sangu weer yëpp noonu la gën a xawee tumuraanke entre guillemets si weer yëpp. mooy weer wi xam ni sa lekk day wàññeeku sa léppay wàññeeku da ngay bari yenn yu bare yenn loo bawul da koy wàññi. muy lépp bu dee wàllu lekk la nga daan lekk da koy wàññi bu baax a baax a baax a baax soo xëyee xëdd ba pare balaa ngay lekkaat ndogu soo ndogoo ba dem tëdd xëdd ba mun daa presque. repas la benn la ak genn wàll ñu ni weer la woo xam ne da nga siy noot sa bakkan da ngay jiyaatu naf si da ngay jiyaat ak sa bakkan weer la woo xam ne lépp lu sa bakkan doon yuutu di ko xare di si jëm da ngay yeewu sa bakkan noot ko téye ko weer woo xam ni sa bakkan moo la yóbbu si bëgg lu neex naan damay sàkk ba lii sàkk bëgg lee ak nangam sàkk lépp wàllu nafsu la ñun la noot ko ba la ngay dundee la ngay lekk sax la doon loo xam ne du lekkat trois repas yoo xam ak quatre yi hors d'oeuvre dessert plat nangam añ rëy ndékki yooyu yëpp dañ koy teg de côté la del ndogu kon weer la boo xam dañu ni nit sa dund sa consommation dafa war a wàññeeku waaye ma ne dafa mel ni weeru koor c'est le contraire la nit ñiy lekk moo ëpp que lan daal lekk d'ordinaire moom weeru moom daanaka sax danga naan lanuy dépense moo ëpp lan daan dépense ci weer normal or nag dafa war a nekk le contraire parce que weeru koor ci la repas bi war a gën a wàññeeku ndax dangay yendoo woor tout la journée mm-hmm. daanaka heure bi ngay lekk dafa dafa restreint benn heure bu gàtt la mm-hmm. ci ngay reer ci ngay ndogu ci ngay reer ci ngay xëdd donc euh, yenn dépense yu bëri yi yàq la te yàq nag baaxul même l'islam santaane wu ko nee na nañu lekkal mais bul yàq mm-hmm. da ngay gis weeru koor buñ demee marché lu ne ñu jënd lu suñu bët dal rek ñu ne ah kii bu ma ndogoo dinaa ko soxla ndogu la day ëpp reer ba noonu tegle tegle tegle loo romb jënd teg loo teg te boo naanee ndox doo ci mën a lekk leen lépp fa lay des donc loolu yàq la loolu yàq la te tollootuñu si jamono yàq na nu yaxanal ndax yàlla ñu dimbali indil nu weer wu tedd wi ngir ñu mën ko si jaamu te si biir euh, jaamu yàlla boobu ñu koy ñuy woor weer wi tamit wér gu yaram nga ci am wér gu yaram nga ciy am parce que sa estomac dina reposer nga gën a am santé donc sa poche dafa war a gën a naat parce que da war a yaxanal mm-hmm. bàyyi yàq gi weeru koor ci la ñuy gën a tuur ñam mm-hmm. ndax lan togg ëpp lu romb nga jënd du romb nga jënd prise la ngay togg te doo ko mën a lekk yëpp loolu yàq la mm-hmm. sama morom jigéen ñi nu góorgóorlu mm-hmm. euh, seet côté boobu wàññi ko bu baax a baax mm-hmm. même bu fekkee bëri nga ay bëgg-bëgg aussi nga limité seet loo xamante ne rek dinañu ko mën a lekk mu yem ci lekk gi moo gën muy ëpp ba ñu koy tuur wallaay Marème li nga ko wax parce que wax nga la maître mu wax nga ko mooy weeru jaamu yàlla la te bu nu naan jaamu yàlla rek jaamu yàlla dafa am lu mu àndal toroxlu toroxlu la àndal n'est-ce pas tumuraanka la àndal c'est pas pour rien boo xoolee xale ndongo daara yi taalibe yi boo leen gisee ñuy jàngi doxe tànku neen lekk jaxase et cetera nangam sangam yooyu xeet la yoo xam da ngay dañuy dañuy dañuy da da ngay ak sa bakkan xale bi dañuy fexe ba mu moom bakkanam mu moom naf soom mu moom boppam bañ comme li ñuy dal ñun suñu suñu bakkan jiitu ñu kon wér la goo xam yow mi nekk mag bu fekkente ne jaaroo foofu jàlloo yoonu daara jaaroo foo xam vraiment ah, am na benn certaine forme de socialisation n'est-ce pas la defal alors nga defal ko sa bopp ñu la nootu sa bakkan te comprends su gu bëccëgee bëccëg weeru ko mooy ñu si dara sol lu rafet sa parfum bu laal lekk ndox lu mu tàng tàng tàng boo maree doo naan nest pa jigéen sax bul xool sa bët sa lépp na woor kon weer la boo xam ne ni nga ko waxee lépp métti moo see jaamu yàlla la. Mm-hmm. mais bu nu jaamu yàlla lépp ba timis jot dafay mel dañuy bëgg di lépp sotti si almet taal ko tos si xaw ma pétrole taal te koo ngay gis ñii di lekk ñoom xamal seen ay saucisson la ki ay garam ko commandé mais du n'importe quoi bu ñu lalee ba pare rek da ngay tiir si wàllu yàlla te pourtant bu ne as as bisimilah bu ne bu ne bisimilah dog jot na sa ñetti doomu tàndarma sa guusu café guuxu kafe genn wàllu kaasu café nga naan ka naan sa kaasu ndox julli timis soo paree sa ceeb ba ñu togg tiim sa lekk sa naan sa attaaya tëddil ku ko def taw ñu ngànk la nag man à chaque fois dam naan koor da ngeen war a sax abonné mburu sax dafa war a bàyyi mburum koor mum ku mburu n'est-ce pas si weeru koor nan ko teg de côté ndaxte boo lekkee sa kat boo lekkee doo ko doo ko mën ñii dem naan damay xaar ba naafile ba 11 heures ngay soog a lekk xoolal actuellement tension yi feebar yi am nga dem ba 11h minuit. Hmm. nga tiim sa ceeb bu jël lekk bu suur këll fooy doxantoojee tëdd moo si tagu soo tëddee yooyu mooy ñu commencé. dem régurgiter indil yoo xam ni. alors lu nekk fee bu nekk du dara te pourtant koor weer la pour pour wér-gu-yaram boo jaamu yàlla yàlla moo lay fayal boppam loo mën a toog da nga naan génne na boo paree da ngay pes nga ndax man génne naa asaka yaram. Hmm.

porcelaine yu bees kaas yu bees nangam yu bees langam yu bees yàlla bu sax fekk sax en général sax nga nekk sa ay guddi si biir kër gi xam nga alors alors sa nekk tàmbalante ku nekk di jënd denc ku aaye boo yaakaar ni Macky Sall lay ñëw ndogo si day si kër gi. tu comprends si benn weer kese loolu war na see xalaataat jigéen ñi war na am taxawaay boo xam ni dina ko loolu daal xam nga je ne sais pas peut-être lu ëmb loolu lépp wala lu war loolu lépp xëy na aussi mën nañu xuus ba si biir xëy ma xool loolu tax jigéen da am taxawaay boobu n'est-ce pas mais boobu taxawaay daal la jigéen am même chose dem jënd lu nekk la koy jënd loolu da ngay jëndi fromage da ngay jëndi ko xam lan yooyu yu xonk yooyu roo yooyu ñuy saucisson da ngay naan ma du ma lekk lii lu ne daal ko jënd indi ko puis boo ko lekk xëy dañ koy lekk donc am na aspect bi nga xam ni Marème jigéen ñi war nañ si delluwaat seen xel si lu ñuy war a taxawe si yoru koor. Euh, ni ma la waxoon keroog rek jigéen mooy lépp jigéen mooy yore gestion kër donc jigéen moo war a yaxanal la ñuy indi ca kër ga. mais weeru koor dafa mel na man bu ñëwee jàngat bi ma ci am day mel na yeneen weer yi daawuñu lekk. day na yeneen weer yi daawuñu lekk. parce que lu ne dinañu ko jënd lu ne dinañu ko wut. ba ci marché yaa boo xoolee. Mm-hmm. weeru koor la marché bi di gën a alimenté wu en nourriture. Mm-hmm. gato yi fii bonbon yi fii saucisson yi lu ne fruits yi façon bu ne eh, oh, bu dul weeru koor doo ko gis am na marchandise yoo xam ne weeru koor ba weeru koor nga koy gis bu dul weeru koor doo ko gis. ba si boulangerie ma ne. ba si boulangerie ci la ñuy gën a liggéey. ci la ñuy gën a defar pain yu baax ak yéen xeetu yu bees yi ay pain yoo xaw ma fraisé ay yooyu koor kiy gis ay pain yoo xaw ma tressé ay pain pain bu dul façon bu nekk weeru koor bu paree gars yi bàyyiwaat. bu paree ñu teg ko mel na weeru koor rek la ñu war a lekk or que weeru koor ci la ñu war a nag wàññi suñu lekk sax nag ndax euh, diggante bi ñuy lekk dafa gàtt diggante bi ñuy yendoo woor moo gën a gudd diggante bi ñuy lekk ba pare lekk loolu yëpp bëgg tëdd feebar la lay yokk au lieu jële ci wér-gu-yaram doo ci jële wér yaram feebar nga ciy jële ñaareel ba yaa ngi yàq sa yaa ngi yàq sa poos ndax sa kanaloo sa dépense nga gën a dépense ci weeru koor ba pare gën a indil sa bopp maladie donc loolu war nañ ko moytu yenn jigéen ñi nag si kër yu mag yi ak affaire defante la ba ci porcelaine yéeg yëpp nga yaakaar ne borom day doog a waaj sëy jënd ay bagage jënd ay bagage mel na bagage nekkul woon ca kër ga amatoo woon benn bagage bu bees jënd jënd jënd ba mu bëri mhm. bu ndogu jotee ku nekk yaa ngi naan maa aye tey mhm. kenn du ma dàqale naa dressé table bi ba mu mel nii di def ay affaire defante yooyu nag am na ci ñenn ñi affaire defante surtout dans les grandes maisons yi nga xam ne dafa bëri ay jeeg macha allah defante yooyu am mhm. li ngay dépense muy mujj ca ñamu xare mm. wala muy mujj di tuur ndax xale yi luñ lekk-lekk bëccëg bi duñ ko mën a jeexal loolu gaspillage la kon nag nanu gérer mm. suñuy économie mm. nanu gérer suñuy économie yaxanal suñuy poos mën ci génn ndax ci biir weeru koor gi lu mu metti metti metti yaa ngi jëmaat ci weeru korite ci ci fin bi ci korite gi nga war a waajaat yow dépense nga lu ëpp la nga daan dépense ci benn weer daanaka la ngay dépense ci ñaari weer moom nga dépense ci benn weer bi ba pare dëgmalaat encore fête hmm. kon war nañu xoolaat suñu toogaay ñun jigéen ñi war nañu xoolaat suñu toogaay bu baax yaxanal te xam ni weer wi yàlla daf ñu ko wàcceel ngir ñu jaamu ko si mais pas pour ñu yàq si hmm. ndax suñu borom bi subhaanahu wa taala dafa nii même bu du weeru koor gi de dafa nii lekkal mais bul yàq. Mm-hmm. suñu borom bi sib na kuy lekk di yàq. Mm-hmm. parce que la ngay lekk di yàq am na sa nawle bu toog amu ko. Mm-hmm. wala amul lu ko doy ba mu mën ka lekk kon nag yow boo amee lu la doy bul yàq. lekkal bul yàq. loolu daal léegi wax dëgg yàlla war nañ ko xoolaat bu baax. wallaay jigéen ñi te ñu xool si suñu taxawaay nañu lekk lu baax nañu lekk ba suur mais ngal la bu ñu yàq. bu ñu kii lu bëri affaire defante. kii du ma gën a baax ndogu kii du ma gën a lii wala ñenn ñi ngistal yooyu jaru ko. parce que yëpp ay privatif la loolu amul benn solo. danu gàddaante wallaay loolu la ka xanaa defaat suñu mbokk yi mën ngeen vraiment dugg si 33 961 61 02 vraiment yéen aussi wax seen xalaat goro yeeg. nest pa pas yaay yaayu jëkkër yeeg nest pa pas nun ko tuddee ti mooy njaag yeeg ak koos ak njëkk yi vraiment ñoom aussi seen xalaat soxla nañ ko si daal mais mu ne comme ni ko waxee rek ah, ah, ah, mooy loolu mooy mooy moom c'est le maître moo weeru jaamu yàlla la mais jigéen da naan non da ngay war ba ngoon jot alors li ngay il faut nga dabu ko nangam sàngam luy dabu loolu mooy problème loolu ndax ñu bare loolu ñax ñu bare pourtant dabu boobu yëpp duñu ko lekk de wallaay mos tuuti la ñuy def bàyyi foofu leneen loolu mooy yàq gi nag dama leen dox à chaque fois naan leen koor man je conçois mal sax biir weeru koor kañ nga siy lekk mburu bu dul fajar te bu dee fajar fi aussi vraiment boo lekkee mburu nekk ba su xoolal da nga koy te mu sa koor da ngay toog ba nga def dara nga géex mu génn te bu rombee sa pôle sa koor yàqu na. donc donc lu ma gàtt gàtt tàndarma boo ko lekkee naan sa kafe doy na sëkk sa xëdd bi mais léegi gars yi lekk xëdd xëdd bay bu ñu géex sa dëkk rek day gis ñuy commencé di géex bay gàll ko seen koor di yàqu ñu bare bu ñu xoolaate sa bu nga xam seen koor gi sa waay xoolal takk na suuf tu comprends wallaay xiifal la te xoolal damay sa neuf wala huit heures la koor que ñëw la géex wala génn loo xam dafa def ba fii ba mu wan waat ko te vraiment du dalul sur sage lu bare kon yëf yi du affaire lu da nga war a perte si weeru koor da si war a ñàkk yaram bu baax comme leen war génne asaka yaram mais bu ñu taxaw naan bu ma génnee weeru koor damay lii damay laa damay préparé ko te gi n'est-ce pas war naa tooy war naa war naa yu kenn xamul daal déedéet xam nga donc si bàyyi xel quoi. mooy ma Marème ah jigéen fi ñu jël weeru koor dootul jaamu yàlla examen da dañ naan weer la boo xam ni alors weeru affirmation la maanaam weer la boo xam ni dinaa woon man sama dayoo. si sama goro defante bi rek. loolu waaw loolu sama rek boobu sax dama xam da ngay tege mais danga naan man sama goro. il faut ma wan ka fi ma ko toll il faut ma wan ka ni ma ko nangam sangam parce que dem daan naa ko ton daan naa def lii tey il faut ma jéem a fexe ni ma bégale sama goro or bu dee koor kese nga mën a xaar pour bégal sa goro nekkatul goro goro yaay c'est tous les jours c'est tous les heures c'est tous les instants Ça, su nekk la bis bu nekk la waxtu simil su bu nek le, doon si lay doon waaye toog ba ben weer nga bëgg ñëw n'est-ce pas comme ni nga daaw jël sa goro teg ko sa ànd di pendant 11 mois weeru koor ñëw nga ñëw naa ko suukaru ko di nga xëpp loo xam ne maa bu dee mën ke ko sax def ko n'est-ce pas man yaakaar naa ni du foofa amna fane fu mu mën a ma xaj benn ñaareel bi comme ñoo ko defante boo ñëwee sa ay go, aussi amna lo loo xam sa jaamu yàlla gi njëkk gi njëkk njëkk mooy lan nga ba leen frustré maanaam doole yemul juróomi bareem sax bokkul ni ko yàlla bindee mais di nga nekk ak sa pétorgo mu néew doole lool. yow nga ñëw si kër gi nekk intellectuel nekk salarié am extra bu ñëwee yow boo ñëwee bay taxaw naan au oh, moins damay ñëw damay jox li war kee li li la war wàccul sa morom yi te sa morom néew na doole lool. waaye boo ñëwee tey ak sa gëdd ak sa gala nga ñëw taxaw jëf fa rek n'est-ce pas nga ko saaga nga ko. toroxal nga ko duma nga ko. doon sax yéen a ko bokk yéen am noo xam vraiment ba ñu taxawaay bu ñu soobee boo ko mënee ba koy mën sax bu kenn feeñ ku ko def. boole ko ni ko aay nga jënd sa ay jasineer moom wutal la benn pilote wuñam def ko si nga ñëw boole ni ko yaay kii da man ak sa man ak ñoo la ko jox sa nangam sax kenn du xam ko def lan. kooku forme de n'est-ce pas dëkk rafetal dëkkandaayu la xam nga bu boobaa kenn xam ko def lan te bu boobaa vraiment ngërëm gi yéen a koy di bokk waaye kii mënu ko fu mu tëlee fa laa koy defee en général jigéen noonu lay defee. ñëw taxaw di ko def ba pare nag góor yi taxaw di ko xaar boo ko deful yow moom tey mara mooy loolu de xam nga boo tëlee suukaru koor yi de. suukaru koor daal suukaru koor bu ko taxaar la voilà. suukaru koor bu ki tas dëkk bi. wallaay. ndax suukaru koor bu njëkk ba. Euh, ni ñu ko doon doxalee ak ni koy doxalee léegi bokkul mm-hmm. ni ñu koy doxalee léegi ëpp na léegi da gis ku joxe or sax ci sukkaru koor xam nga loolu dootul sukkar mm-hmm. nga gis ku joxe ay jasneer xam nga loolu dootul sukkar man dans un premier temps man li may wax ci teraanga bu dee teraanga lañ ko duggee teraanga diggante nit ak goroom diggante nit ak ay njëkkeem dafa war sax te sax boobu sa àqu doole fi mu yam la nga mën bu dee salarié nga la nga mën ngay def bu dul salarié la nga mën ngay def te loolu da nga dafa war a sax nga dañu koy saxal ci diggante ndax loolu mooy rafetal ànd mhm. di ko def tout le temps mhm. moo gën ñu choisir ba benn weer mhm. ñu def ko weeru defante nga nekk ak say peccoor ba comme ni nga ko waxee léegi ñii am nañ doole ñii amuñu doole bu dee sax bisu weeru koor xëy na la ëpp lu ñuy def nañu boole lu ñu yor joxe rafetal ku nekk yu baale sa morom mu nekk sutura kenn bañ a xam kii def na lii wala kii def na lee wa ilaa la ngay def nga def ko ci sutura mais léegi nit ñi lépp lu ñuy def ngëstal lañ koy defee. ngir wonewu booy booy teral sa goro ca penc ma ngay taxaw wonewu mm-hmm. booy teral sa njëkk ca penc ma ngay taxaw wonewu teraanga nag teraanga gu dëgg gudul ngëstal doo taamu lieu bi nga koy def doo taamu moment bi nga koy def ka nga dëkkal danga ko koy defal mm-hmm. man teraanga boobu moo saf waaye teraanga boo xamante ni defante la te ci biir defante boobu aussi dafa dem ba nga xam ne ñanu koy defal sax dañuy xool yéen ña koy def kan moo ci gën a dunle mhm. donc di ruub di affaire yi day dem ba mel na kujje gu métti métti lay doon te ki ci gën a néew doole rek moo ciy sonn le plus souvent. ba tax muy def lu mu mënul wala muy am kersa di frustré wu wala di di di am complexe. te fekk nag loolu c'est pas obligatoire. jaru ko jaru ko nit la ngay def def ko ci sutura mhm. la nga may may la nga may jox jox ma ko ci sutura te ñu ñuy goro yi aussi ñu gëm yàlla te xam ni nit ku nekk àqulaay taalaam li mu am la lay jox bul seet ni kii moo ëpp li may jox kii lay faral moom lay gërëm kii amul dara moom lay xarab wala moom lay ŋaññee di ko xoole yenn bët yi non non non ñépp sa doom moo leen indi ci kër gi mhm. yàlla nag dafa bind yamalewul mhm. ñii am nañu ñii amuñu te situation yi yamul da nga gis sax ko am as tuuti fekk la mu am ci charge moo ëpp doole la mu am ba nga xam ne la mu bëgg def du ko mën a def mais man yaakaar ne yaakaar naa ni teraanga ku nekk yéene nga ko sa goro mm. ndax goro mooy yaay teraanga ku nekk yéene nga ko sa njëkke parce que njëkke mooy sœur mm-hmm. ku nekk yéene nga ko sa beau frère ndax amoo famille lu raw ñooñu ginnaaw sa kër yaay bi nga jógee defe naa ni sa kër yi goro fi nga sëy si mm-hmm. ñoo gën nekk sa famille ndax foofu bàmmeel nga fa jënd mm-hmm. donc la nga cay def yëpp def ko ci mën-mën def ko ci sutura def ko ci teraanga waaye jamono bii léegi defante wanewu nga gis kuy joxe loo xamante ni yow da lay wóor ni moom mii lii mu joxe am ko boo demee di joxe sukkaru koor nga yëkkati or chaîne or buy jaree deux cent mille wala trois cent mille nga yëkkati joxe te yow wóor na la ni wóor yàlla ni yow si si si sa si sa biir <laughs> si sa biir kër lekku la fa deux cent mille boobu loolu ngëstal la ak wanewu donc ñun jigéen ñi lépp ça tourne autour des femmes aussi lépp ñun rek la ñun rek la ñun ñoo ëmb lépp ñun ñoo ëmb njaboot ji ñun ñoo nekk ak parents yi ñun ñoo ëmb société bi kon ñun nañu xoolaat suñu toggaay xool ni ñuy doxalee ni mu gënee rafetee ñu doxalee ko noonu mooy suñu njëriñ mooy suñu njëriñ te moo ñuy gën yu jëmale kanam ndax suñu xoolee ni ñuy doxalee suñuy koom bi ñuy am dinañu mën a avancer loolu mm-hmm. dinañ ci mën a gis suñu bopp luñ ci bëgg def dinañ ko mën a def mm-hmm. waaye su fekkente ni euh, seetuñu loolu yëpp gëmm suñu bët ci loolu yëpp indi defante teg surtout wujju peccorgo yi. surtout wujju wujju peccorgo léegi dama naa sax moo gën a metti sax wujje. parce que wujje danañu comprendre te mais danga naan sama peccor naa non man yéen de moom mënuma koo vivre. metti na metti na metti na metti na lool. wallaay wallaay wallaay ni ko xam ko ni sax wallaay comme ni ko waxee peccorgo yi en général lay nekk quoi parce que si peccorgo bi en général ah différence peccorgo yi.

jabaru Modou bi loo mën a def dina xuloo waaj a tàppe ba exactement pour woon que ni fii li mu fiy doon yëpp mm. maay nangam et cetera xam nga daal il faut ko. pour pour wane boppam wane ko man maa fi am lii maa defee ñëw ñëw lii wane taxawee noo xam ne te loolu lépp li ngay def njeexital gi du lenn lu dul lu dul rek ni wan sa keeg dina. ku li ko doom yi ko koo épouse koo koo mooy li nga xam ne yéen a si yem képp mm-hmm. yéen a koy bokkandoo def benn kat du sotti waaye bu nee koo rek mooy li nga xam ne maa ngi la boo absenté du sotti suma absenté du suma absenté du sotti il faut ñu ñaar ñu toog ñu day mel ñaar loxo ñu naan bu ñaar loxo bu amul tàccu du mën am kon bu naa góoy pa day mel ñaar loxo la da nag li jëf ju ma bi mooy tàccu bi kon bu kenn ñëwul tàccu du fa mën nekk. koo épouse ko ñoom ñaar si biir kër gi comme kër gi lépp lu mu war a doon ñoom jeeg jooju si kër gi jeeg si biir kër gi ñoo ko war a gérer kon ñoom wër ñu réeroo si dara te kenn warul xam ku am lii ko ñàkk léegi. wër ñu kaa parce que seen jëkkër yi en seen sœurs lépp lu am lu ñuy def lu nekk kenn doo xam ne naan ñun waa waa kër diw ñoo def lii kenn doo xam ko dafa ko deful. kon ñoom war nañu mën a roy su loolu ba xam ne ñoom it lépp ñëw ay wujj lañu waaye xoolal bu ñu dara lu ñu def suñu goro bi këppale wu ma si li ma si li ma war si moom wàccu ma li moom kon vraiment gannaaw nañ ko dafa doon benn ñu boole ko doon benn ñu nekk goro daal ñun de la ko tële xeeb nañ ko loolu boo xeeb xeeb nangam sàng wax ko ñoo tax du xam ku def leen ku def leen li ma wax sama goro yi daal nangam sa kooku dèjà day nekk loo xam ne képp ku ko mën a def na sa kële amul dara nangam ak sax mais duñu xam ko def lan te loo day gën a tax suude seen diggante day dem ba dafay gën a suude ra taxal seen diggante gën leen boole yéen ñaa bëgg ëllëg ku si nekk di nga am loo xam ni alors di nga ëmb sa sànqal morom si nga xam ni alors di nga ko jàppe mais bu loolu dem rek sa waay xoolal lan satante lay doon quoi dañuy asibante dañuy xëppante asib dañuy nangam sax te loolu taxatul weeru jóg taxatul koor loolu taxatu ko jóg koor weeru yërmaande la weer la goo xam ne boo defee benn baax yàlla dafa ful la guddoon fukk ñaar fukk yu daan wax téeméer xam nga loo mën a wax ci lu baax yàlla ful la ko boo defee sax safaan lu baax sax yàlla xaw la tànqam lu wala mu naag la boo tubee mu baal la ko xam nga donc lépp yooyu yëpp dañ ko war a ñëw def ko muy jaamu yàlla comme ni ñu wax weeru jaamu yàlla la kon jaamu yàlla boobu nañ ko tàmbali seel rek même bu seen diggante taxul woon sax ma dem wéeru koog wujj bii um ne baal na àq yàlla na ba pare nga ñëw ni nga xool ne buñ fas naa la jàppal ni wujj kii ni ko fas naa jàpp na nag dootoo wuji sama rak nga si man loolu lii naa nga sànn naka si weer ne def def ko teyaat rek tax ngeen ñëw jàppandoo foofu Mariama gën naa lii ku ko def muy dugg sew yàlla moo si teg loxoom wallaahi wallaahi wallaahi waaye vraiment nag li si des boobu vraiment lu mën a ñàkk la lu mën a ñàkk la mën na ko jël nag tekk expliqué diwaa dimension aada ak cosaan n'est-ce pas mais tey actuellement dañ toll fi nga xam ni aada ak cosaan dafa toog ne du jubanti waaye léegi dawalatul lii dawal modernité bi la gars indi yoo xam vraiment daal ah, mooy dawal société te bu si aada ak cosaan bokk rek sa waay fu mu ne jëmal sa pax leer doon daal ma dem. dëgg la moom aada ak cosaan day dañ doon rafetal. Mhm. mag ñi seen dundin yëpp rafetal la ak maslaa. Mhm. ku nekk di ëmbal sa morom sànqalam comme ni nga ko waxee sutraam donc rafetal boobu ndagam noonu la ñu war a dundee bis bu ne rawatina nag ci weeru koor. Mhm. te suñu ko sàmmontee ak moom ci weeru koor ndax weeru weeru jaamu yàlla la ci jaamu yàlla yemul rek ci xiifal jaamu yàlla dangay woor def li la yàlla sant di julli di woor ba pare jàmmoo ak say dëkkaale jàmmoo ak say waa kër jàmmoo ak ñépp moytu yenn yi surtout nag defante weer woowu kenn waru ci taamu defante bu ñu amee lu ñuy def nañu bokk def ko ci sutura kenn bañ nu xamal bu ñu amee lu ñuy wax nañu bokk waxkate mu jëm aussi ci luy defar mu jëm aussi ci wax ju baax loolu mooy ànd bu rafet te loolu buñ ci saxee ci weeru koor bi dinañ ci mën a continuer at bi yëpp te loolu la ñu yàlla sant buñ ci saxee ci weeru koor gi at bi yëpp dinañ ci mën a continuer mais su fekkente ni ñu ngi xiiroo ñu ngi ŋaayoo aussi bu weeru koor ñëwee ñu faire semblant bu weer wi jeexee ñu delluwaat ca la ñu nekkoon donc weeru koor bi dafa ñëw pour fàttaliwaat nit ñi pour tàggataat nit ñi ñu delluwaat gën a delluwaat ci seen jaamu yàlla gën a defaraat ci seen toogaay gën a yaxanal seen dundin gën a ndax ñu gën cee am wérgu yaram. Mhm. gën a sàmmonteeg itamit seet di ak di saafonteeg seen i mbokk ak seeni am di jàmm ak seen i dëkkaale. Mhm. baalante àq. Mhm. ndax nit ak moroomam du ñàkk kenn ku yoreel sa moroom àq te yógoo ko sax. fekk waxoo sax waaye àq dafa sew te fekk yógoo ko ñu baalante àq raxas xol yi. ànd ànd bu rafet te fekk la may def lu dëggu la ci man lu sincère la ci man fekk sama xol laa ko tibbee bañ ko def def defu ngistan loolu bu ñu ko defee rek dinañu avancer incha allah avancement comportement bu rafet te boobaa yërmande yàlla dina wàcc si ñun mais topp rek yenn pukkare àddina yi ah du ñu gestu lenn lu jóg rek ñu defante diirante mbagg defante loolu rek mooy baxal kër yi te ñun ñuy jigéen ñun ñoo yore lépp ñun ñooy war neexal suñu kër mm-hmm. bu ñu àndee ànd bu rafet ànd bu sincère suñuy kër neex suñuy borom kër seen xel daal su seen digganteeg seen i frère ak seen digganteeg seen i sœur seen xel dal jàmm mën fa am mais su fekkee ni ñun ñi sëy si ci kër gi ñu ngi defante di xiiroo di ŋaayoo boobu day dem ba ci biir famille bi ndax bu may defante di xiiroo di yow dina affaire bi dina dem ba tax frère ba ak sœur ba du ñu juboo wala deux frères du ñu juboo te fekk loolu lépp ñun ñi jigéen ñi sëy si ci kër gi ñoo ko indi mm. kon nag ngal la nañu dëkk dëkkin bu rafet rawatina weeru koor nañu raxas xol yi nekk benn wujju peccorga yeeg peccorga yeeg mag ak rakk yeeg yépp nañu góor góor lu jéem a nekk benn bu ñuy defal suñu goro ñu def te yàlla tax mu bañ a nekk ngëstal bu ñuy defal suñu rakku jëkkër wala suñu magu jëkkër ñu def te yàlla tax te xam ne teraanga bu jógul ci xol rek saxul ci xol ngëstal lay doon teraanga nit dangay teral nit te yàlla tax mm. mais doo teral nit ngir ñëpp gis ko ngir ñëpp wax ka mm. boobu amul sens kon nag war nañu gën góor góorgóorlu ci côté boobu euh, beneen fànn bi aussi mooy weeru koor lu bëri da ci weeru koor ci dee wax tey moom defe naa ni buñ ci gaaw <laughs> parce que weeru koor dafa ànd ak téye sa làmmiñ wax li mm-hmm. xam itam fa ngay teg sa tànk mm-hmm. mais weeru nga woor toog ci keppaar ga Marème mu romb nga ne ii eh, xool ko cam Marème mii dey boo demee sax wóorul wala Marème fa mu jëm fële la jëm fële la fekk la ngay wax dara wóoru la ci booba xiifal nga sa bopp hmm. mais wóoruloo xiifal nga sa bopp mais amoo ci yàlla ginnaaw yi yàq ga ñu yàq ca ñam yaag yeneen yi wax jooju dinañu yàqal lu bëri bëri bëri bëri. Mm. yàlla dañu sàmmante ak loolu. Euh, ñun nag loolu dafa bëri si ñun jigéen ñi tubaab fakkaar te dañ ko tàmm. mais li ma leen wax ni weeru koor bi yàlla daf ñu ko indil pour fàttaliwaat nu suñu bopp pour ñu delluwaat si suñu borom tàggataat suñu bopp. tàggat suñu bopp ci wér gu yaram tàggat suñu bopp ci yaxanal tàggat suñu bopp aussi ci bàyyi jëw bàyyi ŋàññante te loolu suñu ko saxoo ci weeru koor gi rek dinañu ko mën a continuer ci fukki weer yeeg ñaar yi ci kanam. waaw kon nag loolu moom war nañ ci gën a góorgóorlu bu baax te loolu suñu cër la ñun ñi nga xam ne ñoo ñëw sëy si ci kër gi fekk si beneen famille mm-hmm. war a nekk dund ak ñëw dundin bu rafet mm-hmm. ci kaw teraanga ak ci sutura mm-hmm. mais su ma sëy si sama morom sëy si keneen sëy si kër yi kër yi gën a bëri jigéen yi laa parce que. Mm. xëy na ñi nga xam ne dañoo nekk ñoom donc ak seen appartement seen jëkkër amuñu problème boobu. ñuy wax kër yu mag la fa la defante bi gënee bëri. ah man damay def lii dinaa woon kii ni sama jëkkër ak ëpp xaalis waaye dinaa woon kii ni moom liggéeyul. may def nii laay def wala nangam yooyu yëpp jaru ko àddina dong la benn solo. wallaay wallaay amul benn solo même même sax bon peut être ñu nekk sa appartement yi am na suñu yoo xam ne aussi kër famille nga nekk yow kese di fa jëg di fa sëy xëy na sa jëkkër rakk yee wala mag ñi kenn amu ko yow kese nga nekk fa comme ni na xam nga ganaar a la ne xëy ga see xam ne ko n na ko la fi woo xëy mhm. nga nekk dafa yow kese amaana loolu aussi même bu sa demee sax commencé war nga mën a tàmmal sa bopp nga xam ni ëllëg ay pétrole googu ñëw quoi du yàgg daal ay mhm. pétrole daal fekk si kër gi te bu ñu ñëwee yaa fay taw yaa fay ndey yaa fa jiitu kon yaa la war a mën a wan yoon kon war na am yu aussi yow benn comportement boo xam ne comme ni nga ko wax rek war nga tàggat sa bopp ba nga xam ne yow ñee bu ñu ñëwee yow daal la fekk si loo xam ne kenn loo ko yeddee te bu ñu ñëwee daal la mën a defal loo xam ne du ñu sonn waaye bu ñu ñëwee fekk la fa yow ngay jëw xam nga comme que expression sociale bi ñëwul taxaw vraiment bu koor gi ñëwee nga ñëw sama kii woote fii gars yi borom bongo yi ñëw sama goral lii ñëw comme ni nga indi chaîne yi oor yi gis naa si boo xam ne man dama tiit ay bongo la ñuy de. dama tiit dama eh, tiit lii lan la ñu ne day joxe wane ba pare ma yaakaar ni pour man sax ay affaire ngénte yooyu la ngénte taaw la ngénte yooyu ñun ma noo wi koor gi la dafay joxe day joxe day joxe xaw ma suukaru koor ma ne xoolal suukar nu mu toll si koor xoolal la lekk gépp na mu pare lépp xool la foo sa toog suukar na nam sa mel bu dee ataaya xool na suukar toll bu dee jus ba la xool na suukar sa toll loo mën a doon xoolal suukar sa kese li ëpp important lépp mooy leneen ataay li sa ëpp important wargal ak naan ak gaz boo ko toog naan mais xoolal suukar sa su ëppee dañ naan bu pare na boo su bu bay bare dañ naan ëpp na wàññi ko kon ñun la suukaru koor kon ke lu néewul néew lay doon bu buñ ko bëgg a jël def ko def ko envergure bu ngande del ko lu rëy rëy rëy hmm. ma ba pare ñoo tekka tes mooy lépp koor gi à la longue il y a problème il y a problème comme ni ko waxee weeru koor nag ah weer la boo xam sa léppay woor lépp woor mooy woor moo tax moo lëkk bi nga xool si di di début début waxtaan bi ni alors que gars yi ñëw jël jënd lu nekk ñëw teg bëgg li nga toog lépp xiifal ko bëgg a diggante timis ak géey wala diggante timis ak fajar nga bëgg lekkaal lépp di indi sa problème sa bopp problème rek. xoolal lekkal loo xam suba di nga mën a taxawaat kese. loolu rek la dangay lekk tuuti ñam loo xam ne vraiment bu subaa di nga mën a taxawaat nga xam ne au moins war nga siig benn coono bi nga xam ne si koor gi vraiment yow mii noonu nga sa bopp noonu nga sa bakkan ba xoolal nga jël lépp ni que vraiment lii moom dama ko def jaamu yàlla bokk na topp si na comme ni nga xam ne kàppaar ga moom danga koy daw di comprendre loo koy dawee wax ju bari danga koy daw jël sa kus foo toll astafurlaa laa ilaha illallah wala di tudd yàlla di sargal yàlla di tuub loolu boo ko dee parnaay wéeru yàlla lu bon bon bon yàlla rahmaan yàlla mooy yërmaan yàlla mooy yërmane mm-hmm. weer woo leen naa weeru promotion la kon loo mën a def si weer at mi lu mu rëy rëy rëy si weer yi mën nga si toroxlu tuuti yàlla jégal si bakk li parce que yàlla mooy yërmaane yàlla moo bind jaam dafa mat tënk boppam yàlla su sunu matta di googu la ñuy moo tax moom taw yërmaane su ñun sunu matta yàlla yërmaane yërëm ba taw yërmaane su ñun kon pratiquement ñun yàlla daf ñu daf ñu yërëm au avant lépp yàlla daf ñu indi yërmaande def ko su ñun kon ñun bu ñu góorgóorlu tuuti allah kulli an su weeroo rek yàlla mën a lu pàkk rëy rëy rëy rëy rëy at mi soo ñëwee ba weeru koor nga toroxlu yàlla mën na la ka baal noo koy defal nag mooy comme ni nga ko waxee doon fa nekk naan keppaar nga ku ñëw nga wax sa làmmiñ na woor say bët na woor say loxo na woor see tànk na woor say cër yëpp boo wax bu si nekk rek dafa war a ànd ak koor boole seeg mën naa ngay tudd yàlla di astaghfirullah foo toll suñ ko defee pendant fanweeri fanweeri yàggul wéer séenu ba rek la booy séenu ak ba ngay dogi benn doon tu comprends donc buñ ko defee jublu si vraiment rek je crois que de la moo gën vraiment ni jël àdduna n'est-ce pas jël puukare lépp ko dugg si biir weeru koor quoi kooku day nekk loo xam ne vraiment yiw ga n'est-ce pas day daal di day daal di wàññeeku dan daan xool weeru koor fu mu daal ñëwee vraiment nga dégg weeru koor nangam lu ne daal da nga daal sentir loolu daal mais léegi su duggee si kër yi da ngay waaru si yàlla quoi Ah, nga ñëw de ak benn fanaan bi nga xam jigéen boo xale yi ñoo ngi xewal ay suu ay ay si mbedd di defar ay xaw ma naan taal xaw ma nu ko di seen yooyu ñuy si mbedd di def café xam naa prochainement daal ki indi seen yooyu ñuy def si mbedd ka taal xam am ñoo xam ne vraiment ni am na xam ne dañ si wut koppar xam naa si dara kon yooyu xam naa vraiment il faut ñu ñu jéem ñu jéem si waxtaan si waxtaan yi ñëw ñu xool koor yooyu ñuy def xam nga ko tuddee café café koor xam nga café ndogu xam affaire yooyu gars yi dëkkate bu ko dee butéel ñu ñëw tax oto yi bu ñëw ñu xel kaas jox la taxawal nag su ngoon si yëpp taxaw di yooyu daal ma rek. gis nga weeru koor li mu ëmb dafa bëri. weeru koor dafa ëmb lu bëri. na maandu. ëmb na yiw sellal mais tu sais que am na jigéen yoo xam ne weeru koor rek la ñuy yiw weeru koor rek la ñuy <laughs> sama charge weeru koor rek la duy kolu foo leen gis ña nga dagal ña nga paccal ña nga def yi kenn xamul bu weeru koor jotee nag ci ngay gis nag yiw yiw bi nag ci lay génn mais yiw boobu di génn ci weeru koor wi nag dafa war a continuer mm-hmm. ndax jigéen dafa am lu suñu borom namm si moom mm-hmm. donc loolu moom beneen débat la mm-hmm. weeru koor bi nañu continuer di ci yiw mais def-def bi ak defalante bi moom metti na ëpp na metti na ndax suukaru koor gi tas na sa yu bëri de su koor bi gi tas na sëy yu bëri ndax da gis ko ko mënul sax laa jëkkëram ne nàngam jëkkëram contre ñu xuloo si jàppante si ba kii donc loolu ngëstan yooyu jaru ko jox sa goro sukkër ana lu ci indi bongo indi bongo maan tëgg ba koñ ba riir ñëpp gis ñëw leen diw day joxe sukkër teraanga daal teraanga dañ koy nëbb sax nag pour mu am valeur am joxe ndànk mais woo àddina yépp tëgg ay sabar ngir joxe suukar koor dong loolu ay wanewu la ay ngëstël la te kër yu bëree ngi jaxasoo loolu moo ko jaxase te weeru koor xéewal la booy xool weeru koor su taxawee dépense bu la jafe woon dan la yomb ndax li tax ngay depanse loo doon dépense ñaari weer parce que yàlla da ci def yërmande def ci xéewal bala ngay jot ca weer wa gën a bëri la nga daan jot mais nga la bu ko yàq utiliser que na nga war a te xam ni

mooy li ma doon wax sànq goro yi nañu gëm yàlla parce que dafa am goro yoo xam ne dañu encouragé loolu dangay gis kii indil na la sukkar koor ñëw na indi la mu indi ak day waaye mag ni mu toll kee yorul loolu nga gis goro ba di ko xoolee benn bët wala di gaarawaale wala naan ah man de nangam wala diw de moo ma gënal diw wala diw nangam ak nangam di sànni ay trac yoo xamante ni yow sa xolam cay metti te fekk yow wax dëgg yàlla gënu laa gore bëgg nga def li mu def mais amoo donc loolu dafay dafay indi problème ci biir kër yi dafay indi problème ci biir kër yi jaru ko nit boo koy jox teraanga boo amee loo koy terale jox ko ko te yàlla tax te bu dee da ngay joxe te yàlla tax ngëstal du ci am bongo du ci am sabar du ci am. dégg ndax sa nawle bi ci kër gi xamoo fu dooleem toll moom itam la mu am mu def ko. yàlla dafa bind dëgg la yemalewul mais goro yi aussi war waruñu sas kenn lu mu mënul ndax bu ñu xoolee ci seen bopp xam ne ñoom ban cay toll di ndaw. aussi bugguñu woon ku leen sës ci miir bi buggu ñu woon ku leen sas loo xamante ni mënuñu ko du goro yëpp nag mhm. wax dëgg yàlla am na goro yi tabe am na goro yi maandu yoo xamante ni dañoo doylu nga jox leen ak nga bañ leen jox yëpp amul problème mais am na ñoo xamante ni hee eh, su koor koor gi par la boo ko indiwul moom sa toroxtaange ngay jot donc yooyu yëpp jaru ko te yow xam nga ni kii ngay bund xataal pour mu indil la sukkar koor wala nga koy xoolee ni bëtu kii deful nangam deful nangam sa doom lay sonal parce que amaana moom yoru ko mhm. mais sa doom lay takkali bot sonal ko ba mu jox ko mu ñëw indi donc nanu jéem a vivre vie bu bu léger dal bo xamante parce que yalla sonal ken ñun ñoo sonal suñu bopp rek ñun rek ñoo sonal suñu bopp ñoy def lu ñu mënul. di forcer suñu bopp ci lu ñu mënul. ba ba tax ñu ci jëlé ay guuta di ci jëlé ay problème di ci jëlé ay coow yi sew ak kenn xamul amul sens jaruko ko. noonu woyefal suñu àddina. Mm-hmm. kat ba doon na wax ne aduna Euh, cere la des mm-hmm. koy laaloo. danga koy laaloo rek mu neex a makk nga dem sa yoon. Mm-hmm. mais boo ko bàyyee mu ne càq. boo sexee du jàll. nañu jéem a neexal suñu àddina te nag ñu continuer ko ci mois yëpp. mois mm-hmm. yëpp rawatina weeru koor bii. te bañ di denc mer aussi ndax dangay gis ay peccor ko wala ay njëkke nekk ci kër xuloo toog ay mois yu mois duñu tuddante duñu waxante nga la bu weeru koor yu jotee. baalonte leen ak jubóo leen nekk si jàmm. Mhm. jéem a neexal seen dund te ngeen wéyee ko nag nag at bi yëpp nag. te ngeen jéem ko wéyee at bi yëpp ndax jàmm fu mu ne fa la yërmande yàlla di wàcc. mais fu mere yoo am yërmande yàlla du fa wàcc. nañu góorgóorlu tey moom suñu keppaat moom dañu soppali ko ay ostaas mais seen normal parce que c'est l'actualité. l'actualité te lépp luñ fi wax. la ñu bàyyee ëpp. c'est l'actualité foo ñu wax ci. walaay dëgg la walaay dëgg la ma dëgg la yaakaar naa ne coolu coolu coolu goro yi la quoi man gis naa goro goo xam ni moo dakk suukaru kooram benn yoon la ko ko jox mu woo ba mu ñëw mu ne ko lii na dakk mu amati. lu tax mu ne ko lii da bi lan pour la loos jublu mu ne ko dara mu cosaan la bu dee cosaan baax c'est là que njëkk nu ma tu sais pourquoi lu tax ñu ko lu ko indi xam nga daan demee mm-hmm. en général boo daan sëy si kër gi jamono ñoom maam kër gi day yaatu dina am ñoo xam appartement màggat ñi lay doon màggat ñi duñu bokk ak ndab sax bu leen tëbal seen dal leen bool. Mhm. bu kóor ñuy am na sama ñi xam duñu mën a woor. yaa ngi ma dégg mhm. léegi de ce fait ñooñu dañ leen fay fekk fekk leen faak seen neex ñoom ñoo toog en général foofu ñoom mag ñi mag ñu njëkk daan toggal seen bopp. xale yi ku si ñoo jeeg ji bu koo daan jóg da ngay ñëw wuti n'est-ce pas wuti suukar wuti sànqal wuti wóor wuti xaw ma yu bëree bëri ñëw jox ko nekk am sa ak ah, xaw ma lan ko nam lu móor bi dafa xaw a mel ni suuf suuf sa suturaas koor xaw ma daal la ko tuddee loolu la jël ku ne di ko jox kii jox ko par exemple bisaab ak nangam ak kii jox ko li nga xam ne mag mi moo koy toggal boppam di ko suturaas sa gannaaw këram doon kenn du xam du woor parce que mag la mënatul koo mënatul woor am koo xam ne koy togg wala yooyu yooyu leen daan def ba du bokk ak njëlu kër yi nga xam ni bokkul bu ñu ñiy woon ñëpp bu ñu yor sa la ñu mais mag ña dañ leen daan taal seen loxo bu añ jotee ñoom dañ koy togg ñu lekk loolu nag maintenant en général la gars yi bëgg ñu naan dañ ko ba def ko dimanche suba ba egg gis naa boo xam dafa ñëw d'accord mu ne que lii pour lan la loolu ma signification pour lan la pour gars yi ngi ñëw da nga consommé suukar sa bëri nga ma ko lu ma doyee n'est-ce pas dama ko téye ngir suukar bu ma kenn jox dara nangam sa salaka dakkale mu wax mu ne ko bëgguma ko gis ay nangam ay koor gi ñëw sax soxla ma kenn au contraire moom mooy dem wuti ñëw di leen dolli si di leen jox. quand je l'ai vu une seule fois man j'étais dama dama waaru si yàlla quoi ma ne c'est quoi ça après la Russie ne non kii moo nite xool wàccee na leen coono boobu ñoom xalaatuñ sax affaire su ma nga ñun de ñun suñu góor ñun dès premier xam lan à l'hôpital nangam lan ñu ko teggal vraiment amuñu problème yooyu quoi te boo leen xoolee happiness am gor yoo xam ñu ngi lay xaar ah sama suukar koran ji de ma war naa am kaala war naa am lii nangam sanga xoolal nga commencé stressé wu kon gor yi man jàpp naa ni bu leen neexee ñoo mën a fay daay gi mhm. gor yi bu leen neexee nañu fay daay gi te vraiment nañu dund yooyu ay problème yoo xam ne vraiment comme li ñuy waxee soxlagul koor di ñëw pour vraiment sa goro ah. ñëw def si yow dara c'est tous les jours maanaam ñu ko waxee bis bi yàlla sàkkal la

du fay sa abadan. maa la ko wax. vraiment nag pour vraiment nag si bàyyi xel. bu dee mag ñi sutura sport lan doon wax. voilà tey de xaaw yu sutura la tudd. wallaahi ndax tey am na beneen tournure. bien sûr dafa am beneen tournure boo xamante ni baadoolo bi mënu ko. am na beneen tournure boo xamante ni baadoolo bi mënu ko. Mm-hmm. te suukaru koor. dafa dul obligation. Ah, comme ni ma leen ko waxee dul obligation teraanga nit da koy def ci sutura. Mm-hmm. ma sàmba bañ a yëg ma dem ba bañ a yëg kan kay defar itamit mu nangu ko ci sutura te mu doylu ci. Mm-hmm. mais ni nga ko waxee nii goro yooyu ngay gis ñu ñu ñu nangu. ni buñ ma indi lii wala nangam wala luñ leen indi ñu doylu mm-hmm. noonu ngay gisee goro yoo xam ne danoo exigeant. wala wax danoo exigeant danaan la lii nga may indil moo lu tuuti lii. wala mu yéen benn vaccin da la ma jox. wala benn été da la ma jox. de mu yéen moo bàyyil ma kii xol bee dee nangam ak nangam. ci la koy kenn xamul. nit ki doonte ñaar dërëm la yëkkati ci alalam. jox la ka da nga ko war a sant. réyal ko sant réyal ko sant ka ndax yéene ba. action ba yéene ba ci xolam la ko tibbee. lu mu tuuti tuuti ci xolam la ko tibbee. waaye bu nu la joxee nga xeeb. wala nga naan nangam waruma woon jox lii lii tuuti na diw jox na ma lële. Hmm. ni ñi yemuñu. ku nekk la mu la jox. parce que yéeneem la loolu la mën loolu la xolam àttan te action ba moo am solo yéene ga rek am solo ndax looy def ci àddina na ca yéene jiitu bu ca yéene jiituwul dara du sotti nañu bàyyi puukare bi mhm. nañu bàyyi ñun jigéen ñi sama morom jigéen ñi toujours du ma <laughs> tàyyi di wax parce que ñun ñooy jigéen ñooy yori njaboot gi mhm. ñooy njaboot gi ñooy toppatoo kër yi mhm. te doom ndeyam da ca dëggal ndax bu koy nàmpal da koy xool na mu fekkee ndeyam di doxalee rek noonu lay defee mag ñi da naan ku màgg dëbb sa dëbbinu ndey bu fekkee yow san da ñëw fekk sa yaay di defante boo jógee ci defante rek ngay nekk boo ñëwee fekk sa yaay dëggal boppam jubal di def la muy def yow tamit ca ngay jaar kon nag ñun ñi jigéen ñi li nu yenu dafa bëri yàlla daf nu teral ba pare cëral leenu lu bëree bëri lu baax ñun la mais ñu lu bon aussi safaan ba ñun la mm-hmm. parce que ñun ñoo koy jëmbat donc nañu seet lu ñuy jëmbat lu mu doon nañu xool li ñuy def lu mu doon loo xamante ni ëllëg ak si biir dina am njeexital bu rafet comme ni ma ko waxee rek woyefal suñu dund dëkk-dëkkin bu neex bañ a stressé bañ a stressé loolu suñu njaboot bu ñu yaree loolu su si bu rek suñu njaboot roy suñu tubaar fakàlla macha allah suñu dundin neex waye bëgg la laa té nga kenn ko forcer toujours dama len koy af ñaa yow Mariam dëgg nii ma teranga kenn du ko forcer teranga kenn du ko ñoddi nan ma teral nan ma teral non est-ce que teranga la sax est-ce que teranga est-ce que la voilà est-ce que teranga bu ñu ñoddi doon teranga voilà encore lay nek teranga te comme tu dis ah doom ci jigéen jàngaan ni wuy ndey jaar roy kay xam nga donc am na si yoo même bu dul lo sa nan xalat vraiment sun doom yi jigéen ñu ngi xam ne au moins toog di xool comme des nekk observatrice di xool li nga xam ni daan si questionné wu ëllëg daan ko mënte parce que loolu bu amee njeextal su ñoom rek mm-hmm. bu ñu seeyee ñu dem fu nekk day oyof si ñoom waaye bu ñu ñëwee taxaw ngay ñëw daa net la ma koo xam ni maa day taal korité korité boo xam ne seen kër dama booy suñu ko suñu korité dafa maa day taal mais beka yàq ñëw du yàq ñëw toog ba lan fa kenn kii je crois que benn goro bi elle est banquière la xam sa je ne sais pas muy ñëw indi suukaru kooram yoo xam ne maa day taal koo dégg bu ko dëkkul ak ñoom de koo leen dégg bu ñëwee indi ko yàkkam bi quoi indi ko lax si nga fekk ñi mu dëkka ñëw si ñi ngay fóotal dëkka dafa lu extra tu comprends mu ñëw tax ay sama jeeg jaam mi na xam nga jeeg jaam am nga sama jaam wax di du ay yoo xam ni tam yeneen dem mu di nga teg si kaw tu comprends mu dem ñu ne ko yow yaay li ngay def du sa cër yow boo setee ñu la bu di woon ñu doo génn si mbedd mi sëñ ne mu woon ñu nangam sangam te te korite nga fa la yem <laughs> ah ku fi def waaw ku fi kër ga jaxasoo kër ga jaxasoo coow am na waay ah. te kenn ko doon wax sax teraanga moom nii kenn mën wax mag kenn wax waxu dëgg mag kenn waxu la longue dana mujj daal si kaw jabar yi te xam ne à tort tu comprends donc am na si yoo xam ne moo tax ma ne gor yi ñoo mën a fay taal bi yooyu am na yoo xam ne vraiment bul def vraiment comme on dit à chaque fois ku la doon ne vraiment sama góor ñoo ma jox xaalal du dul jeex may may ma xaalis bu bari bu kenn xam xam bu kenn xam la nu joxe loolu au moins bu dee ba naroo ko a jël n'est-ce pas bu kenn xam lu kii joxe mais pour na ma xaalis bu bari macha allah kii tamit ñëw ma xaalis bu bari teg si lii teg la kii ni ma xaalis bu bari def si lii kat ala longue du ñu xam lan la xaalis bu bari ngay dégg kii mën na joxe ñaari téeméer kii jox fanweeri junni kii joxe ma ñoom. mooy sutura loolu mooy sutura indi ma xaalis bu waaw tëkku ñoo ngi yëkkat ah taay ko lu waay mu nga ñëw ñoo paye lii ñoo pare sama gor yee ma ko subbantee alaa loolu du xam ko def la i yow kay macha allah yal na leen nangam boole leen ñaan boole leen waaye ñëw seet ah yow yaa def lii na doon benn ñëpp bokk na benn bu dee ngënu la benn la yéen ñen ñëpp ñëpp ko bokk bu dee sa lii lu mu doon nañ koy bokk ñëpp waaye bul seppi di si wax daal moo tax mun daal gor aussi Mariam am na taxawaay yoo xam ne vraiment Euh, si biir kër yi war nañ ko mën a taxaw au moins pour sauver njaboot gi. pour vraiment au moins instaurer benn stabilité sociale boo xam ni si biir kër gi vraiment xool ku kuñ rek war leen ko nawee. waaye bu ñu ah ku ma kii ah, ah, sama kii bi sama lii ñu naan sama tubaab bi ñu se sama mori sama lii bi et cetera alors loolu doo xam daal xam nga mooy loolu bu ñëwee koo wéetal. ku wéer comme ni la teew rafet du ñaaw. du ñaaw teewu rafet du ñaaw boo ñëwee taxaw ne la lay la ne. maa ngi nii nii la ma def benn sago fii ma ñaari téye ma tegal ma si tuuti te ma delloo ko waaye ma rek wax la. loolu ah, am na de lu ne. bii la nga sa ëpp la ne la nga sa ëpp. waaye ndey ji eh, jaboot goro dafa war a nekk ndey ji seex. wallaahi ndax euh, ku la defal it sàkku na ngërëm. Mhm. waaye nga xam la ngay wax ak na ngay waxee. te xam ni kala defalul it yéeneem këy na mu ngi ci def. Mhm. te li ñuy wax bu dox jeexul waaxu si du jeex. Mhm. mën na bañ a def tey parce que amu ko ëllëg mu def ko. kon nag yamaleel sa njaboot yamale say goro yamale say doom. ñoom ñëpp nañu yem ci yow na nga bëggee kii bëggee ko kële. donte sax intérieurement dina am koo ci gën a kii ndax xam nga rek àddina bi léegi moom bii la ñu gëm. Mm-hmm. koo ko gën a defal rek. moom yaa ko moom. dégg waaye nag maslaa am na. nga gérer gérer sa jaboot ba nga xam ni sa këru doom du jaxasoo sa sayu doom du yëngu loolu moom wax dëgg yàlla goro yi war nañ ci mën a taxaw ak njëkke yi mm-hmm. parce que sëy yu bëree ngi tas mm-hmm. looloo ko tas goro yi njëkke yi koo ci defalul ñu taxaw fële cam suñu jeeg bu bon bii moom de nangam suñu càmmin lu mu am jokkate defalul ko nangam ak nangam ak nangam xamu leen nu mu demee xamu leen sax tax seen càmmin mu ngi koy defal bu fet xamu leen sax tax seen càmmin mu ngi koy defal mm-hmm. sutura si yàlla lay wéyee mm-hmm. kon nag bu kenn xaw yi sa sutura morom mm-hmm. nañu ëmbalante suñu sutura suñu bëggee suñu dund neex te oyof te ñu bañ a sonn kon nag euh, mangoog daal lu ci waaw lu dul si nag yëpp xajul si cin bi donc euh, ñu ngi ko fi kii rek ba beneen yoon incha allah ndax waxtu bi xaj nanu sànni mhm. euh, ci dernier sa dernier kàddu rek après ñu tàggoo vraiment vraiment euh, xanaa ñu ngi jublu si weeru weeru teranga weer vraiment ah, li ni ko yàlla wax rek cheikhu ramadan xayru min alfi shahr yi moo gën waaw waaw moo mooy sangu mooy sangu lu mu doon rek yàlla sàkkal naka sangu bu dee bis yi ajjuma la bu dee weer yi yi lay doon bu dee guddi ñu ne laylatul xadar lay doon xam kon bu si mën doon rek alors te biir weeru koor si la laylatul xadar nekk kon ñu si dugg doo xam ne vraiment daal macha allah jiw kese la kon vraiment Marème dañuy ñaan yàlla di feddali daal naan vraiment di baalu àq di baal àq d'abord dañuy jiital baal àq auditeurs yi ak téléspectateurs yi ak internet yëpp ñu ngi leen di baal àq ba pare di leen baal àq ndaxte vraiment nga toog. kii wax ak kii déglu n'est-ce des fois nga wax dara teg si mooy si fekk si dara n'est-ce pas léegi man maintenant dina dem ba alors yow yow auditeur bi ñi lay déglu nga yaakaar ni yaa ta amal li nga xamuloo si lu bari n'est-ce pas la nga xam as comp surtout la ñoo gën a xam kon ñi ngi jéggalu su vraiment di leen baal ak yéen ñëpp ba pare di leen baal ak ba pare vraiment di leen wax ne vraiment di ñaan yàlla yàlla nu dugg si weer bi ak jàmm ak salaam bisimilah rahmaani rahim lépp lu si yiw lépp lu si xéewal lépp lu si ngëneel yàlla bu mu ëmb yàlla noonu yàlla may kattan kattan goo xam ne vraiment daan ko woore yàlla noonu yàlla mooy xol bu laab gunu jégalu ñëpp yàlla noonu xol bu laab bu nu lépp yàlla noonu yàlla nu ko si moolu umatu rasulullahi vraiment di si ma ko waxee bisimilah te lépp si gën a yàlla mu ubbi daal di jox mbokk ultra si biir koor incha allah daan joxtaan yu bare bare incha daan dellu si waat keppaar gi dina di la surtout vraiment weeru koor wi daan soog lépp lu si événement social boo xam ne bi ngi si lëmmën a jamono si biir koor gi incha allah daan indi si keppaar gi ñu waxtaanee ko suñu keppaar gi moom vraiment tey dafa naa keppaar tey xaw na sedd <laughs> vraiment daal incha allah dina loolu daal kon madame daal xanaa mooy sama mujjee kàddu <laughs> di leen jox rendez-vous xanaa peut-être mercredi mercredi prochain incha allah pour beneen numéro ma rem cant ak ngërëm ñeel na auditeurs yeeg auditrices yeeg téléspectateurs yeeg internautes yi ñuy suivre ci banlieue ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu ak te di baal ak ñëpp te nag xam ne nag dañ si jublu rek euh, lu ci baax daal suñu borom bi la lépp lu ci dëng ñun la yal nañu yàlla may dégg ak topp di gërëm aussi suñu équipe technique bi suñu technicien caméraman ak cadreur yi ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal aussi yàlla may nu kooru jàmm ñu dugg seeg bisimilah rahmaan rahim génn seeg alhamdulilahi rabbil alamina te yàlla tàppe xol yi ne ñëpp baalante te jéggalante raxas xol yi ndax suñu borom bi wàcceel nu yërmande caabu beneen incha allah merci <laughs>